accord bi ñuy signé euh, ñëpp fekkee ko mu di ñun ñi représenté fi patronat tourisme ak euh, euh, ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci biir tourisme bi ñu jël ay motokaay yi nga xam ni mettit bi nga xam ni moom la ñu yëg ndax mbas mi ci suñu secteur mu mun a ñu mun a dal waaw maanaam gis ngeen ni que temps yëpp suñu entreprise yi maanaam mettit bi bari na te am dégg ngeen itam ñuy wax affaire licenciement mooy nit ñi nga xam ne dañu perte seen liggéey ndax affaire mbas mi euh, jël gis nañu itam jafe-jafe yu bari yi nga xam ne liggéeykat yi am nañ ko ci ak entreprise itam donc euh, xam ngeen ni que fop nit euh, dog liggéeyam loolu lu diis la ci ki nga xam ne moom moo amee entreprise donc loolu pacte bi yëpp jël na ko en charge maanaam am na matukaay yi nga xam ne gouvernement bi ne ko jël ànd ko ak ñun ak organisation légui kat yi pour lool dal ñu mëna fexé ba mu baña mëna am ñi nga xamné sax jot nañu dem bu fekké ni que liggéey bi comme comme bi may nañu pour ñu jëlaat leen itam loolu itam wax dëgg yàlla ñun euh, lu ñu lu ñu rafetlu la te di euh, dellu delloo njukkal président Macky Sall parce que ku def lu baax ñu wax ko parce que la def man mi nga xamné ne mbaa jiite kuréel yi nga xamné ñoy yëngatu ci tourisme bi waxtuma la sax Sénégal mais ci biir espace UEMOA gisuma benn pays africain mi nga xamné ne def na le président Macky Sall def pour secteur du tourisme bi fi parce que itam wax dëgg ci la nit nit encore une fois bu défé dañ koy wax euh 15 milliards def na ko suñu disposition bu mbir mi amee loolu moo tax secteur bi tey ji ñu mën a toog di wax ak yéen xët bi nga xam ne tey signé nañ ko muy wane yéene bi nga xam ne am nañ ko ñun waa gouvernement bi waaye itam ñi nga xam ne ñooy xëyle ci mbiru secteur euh, tourisme bi ak ñi liggéey xët boobu nga xam ne tey signé nañ ko siif nañ ko li tax ñu egg ci mooy euh, gannaaw suñu coobaree borom gunge bi nga xam ne président gunge nañu ko digtal ñu ne ñu fexe leen ba secteur bi nga xam ne lu am solo la ci réew mi ngeen fexe ba naka la ñuy dëkkoo euh, mbas mi ngeen fexe ba naka lañuy ñuy siggi ba nga xam ne Sénégal bu ñu génnee ci xat-xat bi nañu am offre bo xamné offre bi gën la ci offre yi président de naan à chaque fois nañu fexé ba suñu bëlëbu dalukaay kay moy hôtel yi na nek ay hôtel de rang mondial mun amul raison yo xamné ne mënuñ ko def am nañu ay avantage comparatif li ci dess moy suñu offre nañ ko liggéey offre bobu nak boko ko liggéey ak patron yi nga koy liggéeyandoo mais offre boko boo liggéey kat liggéeykat yi la légui nak ñun ñëpp déggo nañ ci ne nañu mën na nek dañ koy def bu soobee suñu borom joxante nañu loxo loolu lañu sif tay ne dinañu fexé ba non seulement ñu dékku pandé bi niñ ko dékkoo ba léegi gën ko dékkoo bu soobee yàlla mais itam dañu fexe ba fexe ba transformer contrainte yi amni en opportunité té loolu dal moy engagement bi nga xamné sif siif nañ ko ñu am ci mbégte bu baax. dogal bu njiitu réew mi le président Macky Sall joxone gouvernement bi pour ci ay diir yu gatt ñu mëna dajalé patron ya nga xamné ne ñu nekk tourisme way aussi liggéey kat ya fa nek ànd ak gouvernement bi pour xaatim lo xamné dina indi dal ak tal liggéey ci secteur yi nga xam ne moom laa tudd sànq aujourd'hui. la ñu xaatim tey ndax secteur tourisme ak transport aérien dafa une banque bu am solo ci koom-koomu réew mi ñu rëdd ko ci plan Sénégal émergent comme banqaas yi ëpp solo pour wut xëy pour ndaw mais également indi devise ci réew mi ndax tourisme ku nekk xam exportation Donc, kon solo bi société euh, structure yooyu am moo waral li ñu def tey mu mën ñu may dalum xel ak mën a tal liggéey ba ñu mën a def li ñu naan relance maanaam fexe ba Sénégal jongante gi bi nga xam ne moo am ci tourisme ci àddina bi am ko fii ci Afrique sowu jant Sénégal mën ci génne ak ndam loolu nag pour mu am il faut ña nga xam ne ñoo ngànk loolu muy borom liggéeyukaay yi waaye ak ña liggéey ànd ak seen gouvernement

saa yu jamono méttee au Sénégal nañ l'essentiel pour y réew mi kon ci njiitu turu njiitu réew le président Macky Sall dama leen bëggoon ci parce que l'idée bi yombul